dara la wàññiwul ci ñeme dëggam wax na ak yéenekaay bu groupe Futurs Médias ci njoxeem hôtel King Fahd Palace digganteem ak Abdoulaye wadd ak PDS lëngoom ak bokk gis-gis chantier Macky Sall yeeg relation Sénégal Gambie foofee sax mu ne yaay jàmme boo gisee muy doxale ni mel ni Abdoulaye wadd rek moo ko yàqoon daa ko nangu li bang bangam hôtel King Fahd Palace ministre Thierno Lo ne ba nu ñëwee ñoom nguur ak alternance ba gis ne yorin wa woon ci loxoy Stadwood amul woon njariñ état Sénégal ndax ñoom dañ doon jariñu ci seen code part ba noppi wëlbatikuy fay ku nguur gi ndax ndaje ya fa ministère yi doon amal rax ci dolli it liggéeykat ya fa daa yëngu gisuñ ci woon seen bopp jariñu ca président Abdoulaye Wade ne jot nañu jël suñuy responsabilité ci wàllu yorin wi ci la ko moom maître Wade ne nanu ko dénk xaasin si ndax nag liggéeykat la wane na ko ci sous région bi fii ci Sénégal it kàngam la ci wàllu wow di woteel ca booba sax Thierno Lo ne wowoon la ci syndicaliste yi ci teewaayu Mademba Sok mu tàccoo ki loxoom ne ko waaw booba mu ne amu ca ku ne woon déet ñuy xultu yépp nag jamono yi ay démarcheur la ñu mu ne euh, yi seen njariñu bopp leen tax a jóg hôtel King Fahd Palace nag ba tey ci observateur këru xibaar gi ci internet di dakaractu.com ne ci lu ñu bari yëgul sax président Macky Sall dogal na ca bàyyi na yorin weg racine si ba keroog sommet Africité bu Dakar di dalal décembre 2012 fileeg booba nag ñu ne am na protocole d'accord bu ñuy bind ngir doxalin wi diggante état bi racine si la ca gën a fës nag ci beneen protocole d'accord boobee ba ñuy rëddaat bokk na ca wàññi la racine si daat jële ci hôtel ba maanaam ci xaalis ba nu fay dugal jële ko 50 pour cent quinze pour cent ARTP moom mel ni mooy njiwmali ci wàllu kër yi nu audité Sénégal enquête xëy ne rapport IGE 2002 2007 lam feeñalati ci wàllu yorin wu bon wuy nuru sax ak yàq mooy ay soxna yoo xamante ni ménage kese lañ fa doon def ba noppi ëppale salaire yi borom yi bac plus 5 ak it ay stagiaires yu fa doon am weer wu ca ne 300 mille francs juróom-benn fukki junni Tigo moom këruk téléphone gi diggam ak état bu Sénégal la gan ak Walfadjri yéene kaay xëy waxtaane Cheikh Tidiane Ndiong lay wuyoo nekkoon directeur des études de réglementation bu poste mu ne moom sëñ bi njong jàpp na ne état bi 53 milliards ya mu amee ci licence Tigo da caa daanu bu wér ndax gën caa gàtt mënoon na caa am téeméeri milliards te sax mu ne joxinu licence bu bees boobee daa faussé règle jeu yi maanaam yoonal gi ci wàllu joxem licence la nësaxal libération xëy waxtaane njabootug maître Abdoulaye Wade Sindiéle Karim yéene kaay bi ne jamono yi duñu saf ñu tàbbi ci calmbeer annoncé yi IG mujj na ko audité dossier Fesman ñu yeggee ko yoon soxna Awa Ndiaye jaaram ñaareel bi yoon ci kanamu gendarmerie libération ne ku may wulit ay mbiram lëj mbënd mi ak ña ci loru mbëbëtug état bi jëm ci sancal leen feneen ci la populaire soxna Khoudia Mbaye mi nu denk wàllu dëkkuwaay ne suuf moom sax moo fi desatul faf dale ko ndakaaru jaar Pikine département Rufisque rek moo ca desas lëf mu ne ca foofee gët yëpp fa la tegu sàngalkaam yéen jëm ñaajoo Sicap jàpp na moom jëwriñ ji ne la muy jaayee daa seer lool du sénégalais bu ne ca mën a jot ndakaaru nag bu doon ab nen toj ndax xataay le quotidien xëy wax ci l'armée bi nga xamante ni sax daanaka amatul fu mu nuyee misaal gi di seenub Kang Leclerc bi taax mu kawe tiim tey ñaari ràkk yi ca di fàttaliku rek jullik Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ci bureau gouverneur ret nag bis bi ñu ngi ko dara jaale Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou xew wi ca place Faidherbe état bi nag observateur ne ci màggal gi làmbagul poos ba Côte d'Ivoire Sénégal wàllu football samedi lay doon observateur ne Pape Ndiaye soirée Moussa Sow dunu ca bokk i Isiar Dia wóoragul góol bi Ousmane Mané moom taxawaay waa jaaxal observateur ndax ñu ne lu ñuy faral di gis ci àddina ay góor yu mesuré 1 mètre xaw a lool ci ñoom Walf Sport la ñuy jeexale ak Papis Demba moom la muy xamal waa Côte d'Ivoire rek ne bu keroogee samedi dinañ xam ne équipe bu mag lañu dajeel du